ngir gën a mën a jot ay vidéo xibaar aboneel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu leen notification mbégte mais di beral nuyoo monsieur le préfet ak sous préfet mais aussi ak le directeur du CG di am mbégte ci tournée bi métti na coono bi bare na mais coono njariñ la ndax ku jiite askan wi foog nga sonn ci ñoom te askan wi daf ñu wóolu tànnuñu bëgg ñu doxal leen seen yitte kon ñu ngi sant préfet mais ñu ngi sant aussi le sous préfet ci taxawaay bi mais ak tournée bi nga xam def nañ ko métti na depuis jàmm gën ba mi ngi fi tey Lamsaar mais lépp rek pour suñu cadre de vie gën a ñoŋ gën rafet moo waral. di def nañu le bassin de Diamaguène qui est à l'école Aliou Guèye def Ndiago Bar def Médina Marine ñu aussi le dernier bassin di bassin bi nek euh, table Tivaouane lamsar muy bassin yo xamni machallah ndox yu jógee. yan jafé jafé ngeen ci jafe jafé jafé moy bassin yi day fatt rek te fatt bi ñoo koy fatt ah. c'est la population ñu fi sotti mbalit te bassin bi du pour mbalit pour ndox la motax avec euh, tay ñu and ak euh, le directeur de UCG am ñu planifié yo xamni inshallah buñ ko defaree ay bag yo xamni ne yaakaar naa ko bayé xel population bayiko xel ku jógati guddi doo ko soti ci biir ndax ñu soti mbalit ci biir guddi lañu jóg ndax auto bi dafay ñëw chaque jour deux fois kon war nañu am yar am teggin mais am sutura mais am suñu yo xamni ne suñu bop la ndax le directeur dëkk fi dé le sous préfet dëkk fi ñun ñoo fi dëkk ñun ñu fi yeewoo suñu cadre bi ñoko wara sam ndax yalla moyen yalla possibilité comme ñom ñi ngi taxaw chaque jour faut tourner dans la commune dans le Sénégal je dis le CG partout en tout cas félicitations encore une fois à Mam Diarra mais au ministre mais au directeur le parti de am solo la ndax mairie rek il faut que am ñu mu te mairie dama war l'État. l'état la ñun état en passage encore Nous saluons saluer le président de la république sur li nga xam ne une commune er, émergente Le Sénégal est émergent créer émergent mhm. commune émergent département émergent après le Sénégal émergent kon à ñu les filets.

ndax mbir bi suñu mbir bopp la suñu baye ci dëkk ak suñu doom ak suñu sët xam nga fii ni mu salté bu fi doom ñëwee mu na fay yàqu am fi malade bo xam kenn xam boo koy kon nak les CDQ les chefs quartier il faut ñu organiser wu defarwaat bokkul liggéey wax naa ko léegi ni toutes les commissions yi nga am au nom du conseil municipal dama bëgg am ci am ci conseil de quartier yi su ko des ñu def jonction def des réunions euh, périodiques au moins trimestriellement ñu bokk di waxtaan di déggoo di yëkkatandoo di dorando ndax dama à chaque fois le maire seul ne peut pas travailler les conseils waaw xanaa ngeen may rek ma nuyu déjà monsieur le maire de la commune de Diamaguène euh, Tivaouane

problème de déchets solides ak liquide ñu boole leen ci phase d'urgence boobu ngir ñu mën ci indi ay saafara bu loolu weesoo ñun li nga xamni moy mooy suñu liggéey mooy wàllu jëm ci walu mbalit mi xol nañu aussi jafé jafé yi nga am té jël nañ ay engagement lu melni ni inshallah incha dinañ fi déployer ay équipe pour def ben curage ben canal bu nek ci proximité autour de péage bi pour éviter aussi que ëllëg ci bir nit ñi di continuer dafa yóbbu ay ay mbalit parce que japp nañ ni tant que nit ñi ñi am amuñu ay bac à ordure wala point yo qui nous nañ des def mbalit bi bu canaux à ciel ouvert donc nañ pour mettre en place aussi à ordure ak ay points de propreté suñu coordonnatrice bi nek Mam dina une étude pour nous implanter quelques points mais li nga urgent tabaski bi di aussi nit ñi tabaski wala ay reste de déchets euh, de rétention donc incha allah dinañu def ben dispositif bo xamné ay caisse lay nekk yo xamné ne dañ koy dédié spécialement ci tabaski bu lolou weesoo nak ñu xol ban système de pérennisation la ñuy teg lu demee ni béréb bi nga xamné mom moom lañ taxaw ngeen gis ni ben exutoire ou bassin de rétention la mais nit ñi dañuy ñëw di yëg ci kaw di tuur mbalit bi donc fi il faut ñu tef fi benn dispositif de captation pour éviter que nit ñi di tuur mbalit ci biir euh, bassin bi di ñaax aussi population yi ba nga xamné dispositif yoy buñ ko téggé ñom ñu utiliser ko té bañ di jël mbalit ci diko duggal ci bassin yi ak yoy parce que da fay indi yeneen pour plus de vidéos d'informations abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Thiaroye Info TV. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications.